maa ngi Quench Quench toogal nii ñu waxtaan tuuti Quench la grand champion li ma lay njëkk a laaj tey moom da nga ñëw rek ci sa mhm. jàppale ko soutenir ko bu rëy bi mhm. lan ko xoolee loo jàng ci moom lan nga gis ci moom sa xel yow dal na pees mel na waaw salaamaaleykum auzu billaahi mina seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim sant yàlla julli si yonent bi di ñaanal képp ku ne si àdduna bi am soxla soxlay tabaski bi yàlla faj ko man waaw maa lay ñaanal yàlla faj ko comprendre di ñaan suturo yàlla defal ka ñëpp ba kenn ku si nekk am ak xar ba tamaski si jàmm salaam comprendre nga maa ñaanal ñëpp daal euh, di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp comprendre di woo partout dans si combat Siteu bi Diamaguène Fass Mbao Lamsar ñëpp ñu génne jàppale ko te xam ne ne moom xale la te instant yi moom moo soxla. sa xel dal na bu baax bu wér a wér. Papa du si ay waaw déggoo li ma la sida bi muy bi Papa Sow di bëre sida mu ngi jàng toog mu ngi jàng na la ñuy doxee. Mm. kon bu demee bu dox Papa Sow kañ bu tiit di am moom moo war a tiit. mag la du mag moo xam ne da koy jël tëdd di nelaw sida mu ngi entraîné guddi à bëccëg. comprendre nga mu ngi entraîné guddi à bëccëg. comprendre nga ñun jë amuñu dara lu ñuy tiit. Mm. parce que tey favori bu si am Siteu mooy xale. Mm. waxuma mooy favori de dama ne bu siy am. Ah, Siteu mooy xale xale boobu mooy favori bi. Mm. maa ngay ñaanal ndam bu sedd guy. Siteu maa ngay ñaanal ndam bu sedd guy. di ka ñaanal ndam loo xam ne da ngay ndam loo xam ne lu mu dul sax gaañu faf day oyof daal. waaw ndam lu sedd guy oyof. combat waa mais yow yaa foogee loolu rek. Siteu daal non non non comme euh, Siteu Papa Sow ngeen bëgg nii nii ar prip dip yow loolu nga bëgg daal. prip dip waaw loolu moo jaaru. gis nga gis nga Papa Sow bi mu fi tasee mag ñenn ñi prip dip la leen doon daan mais nag góore rek bàyyi Siteu daan nga prip dip. mais gars yi dañoo bëgg a cons combat bi mais affaire yi du ñu ngi cons ñu ngi cons mais déggoo li ma la. Hmm. Siteu yàlla may ndam. dëgguy la ju mu dul gaañu nag. Hmm. waaw alors léegi ñu wax ci sa bés. nga am bés bu rëy. Hmm. yow benn xale boo xam tam mi ngi ci yoonu làmb di Euh, double moteur. Uh-huh. dégg naa sax sam ni lay ñibbisi incha allahu rabbi yow yëg nga lool. waaye man lijjantiwu ma fu double moteur nekk déggoo li ma laa de man yëgu ma sax fu double moteur nekk moom mu mën a entraîné daal naka entraîné. yii dem na wuti doole de. li ma laa de ci gën xam-xam nee na xale la xam na ne ndaanaan nga xam na ne xale nga xam na ne yaa ngi ci yoonu laam mais moom amul du cointre moo ko mën a baare quoi. waaw moom loolu rek la mën a wax déggoo li ma laa de. double moteur boo tegee spécial am déggoo li ma la doo si gis dara lu lay faj nii looy kontaan doo ko si gis déggoo li ma la du bëre du xee du bëre bi du xee bi déggoo li ma la de ah en tout cas daal moom buy ñëw daal euh, nawetaan lay indi ñun nawetaanu ñun dañuy bëri dañuy làmb footballu ñu de la football xam na ñaari nit a koy def fukk ak benn bëree benn ñoo koy def fu bëri nag moo la ab góor bu la bal bi rombee si camp la jëm man bëree maa waa xandaalu xam nga kan laay bëree duwul ma door te biir koñam sax biir koñam laala la wax man dama fa am ay fans comprendre nga kon du ma fa nekk naan salaamaaleykum nii duwul ma door ma fekk biir rabas ñëpp génne diguloo ma de may dos si dëgg bi ñu ku nekk na maan kii doo moromam te biir koñam la barki Mouhamed comprendre nga kon li ma koy wax mooy mu entraîné liggéey lu liggéey na nga te xam ne ne doomu lébu bi lay dajal na moom liggéey moom kenn waxatu ko. lu mu liggéey na nga xeeb te xam ne doomu lébu bi lay dajal incha allahu rabi. mais mu nekk combat boo xamante ni euh, man pour mën a nekk na benn combat boo xam ne xëy na sax mënoon na bañ a am. Hmm. dafa am lu la fa yóbbu. kon ça veut dire capital la pour yow. waa man combat capital la. Hmm. parce que bu ma ko daanee yobu ma fen hmm. loolu moo tax day damay jubanti sama yoon rek. maanaam damay daw. dama jàppane damay daw. mu ñëw rek ne cëpp sama kanam dama ko war a fël rek rombaat continuer sama yoon. noonu la demee. da taxaw quoi di xool noo koy fëlee daal. non xam naa ni ma koy fëlee xooluma ni ma koy fëlee damay ñëw rek faras ka jàlle. mais loolu déggoo li ma la ñëw ñëw ci double moteur. booy xandaal xandaalu ñëw romb nii. booy bu am sañ-sañ boobu am fit mën a bëre. xandaaloo yëpp ñoo yem dama ne la double moteur laay bëril. waaw ah. ñëw rëbës te bu ma jàppee kenn du ñëw. géew ba maam moom rek a fay ne. te incha allahu rabi hmm. bu dee mbooloo maa këpp fuuf hmm. loolu na nga def yeneen mbër yi mbër yi muy ñëw ruube leen daan leen nii koyen sa bokku si de déggoo ma de man damaa am ay mbokk man damaa am ay mbokk hmm. déggoo ma de te bu ma jógee fukki pencee ñaari ñooy jox bu ma jógee tous les lébu ñooy jox comprendre nga bu ma jógee xeet yi ñooy man xeet yëpp am naa fans dégguloo li ma laa de xeet yëpp am naa si ay fans man amul dëkk booy wax si Sénégal te aw ma fay fans amul si àdduna comprendre nga man déggoo li man làmba daf ma defar si mhm. lu bëri nag mhm. kon lépp lu ma am làmba laa koy delluwaat te guddi guddi nag bari ñu laay fanaane déggoo ma de incha allahu rabi jour ji lu fay am maa koy def incha allah yaa nañ yàlla sutura yàlla may ñu ndam waaye déggoo li ma la xale boo xam ne tey benn at ngeen jiitantee si làmb loolu mooy xale xale boo xam ne benn at ngeen jiitantee si làmb moo tax nag dafa lëndëm si moom mm. te man dafa leer man damay ñëw jàll moom mooy làmbatu di xool fu muy jaar man ba bunte yi fayee sax xam naa fi may jaar parce que dama fa yàgg a jaar dégguloo ma de yoon bi lu mu lëndëm lëndëm du ma xuus jaar lu mu am am ay xaaxaam du ma teree xuus jaar ñun ay lébu la sangu si ndox mi ba. wala mooy double ci tubaab. la météo bu waaw mais amal jàmm amal jàmm jaajëf jaajëf jaajëf. <laughs>